juste le temps de permettre à l'invité de bien s'installer euh, donc euh, di ko gërëm bu baax a baax Moustapha euh, Diakhaté maa ngi ko doon annoncé léegi euh, moom cadre la du transport aérien secrétaire général de l'union des acteurs du fret Moustapha Diakhaté maa ngi lay nuyu bu baax di la dalal ci plateau Info Matin maa ngi lay fay di nuyu tamit ñu nekk fii ci plateau bi mm-hmm. di la gërëm tamit di sant ci invitation bi mm-hmm. Chérif waaw ci mbirum transport aérien leen wax rawatina la compagnie nationale muy Air Sénégal ak coow yi nga xamante ni soxna Dieng ba. Mhm. doon ko ciy dégg booba léegi bi ko fi créé sa Moussa Fall sa ñoom nekkoon nañ ci Sénégal Airlines doon fa liggéey liggéey bu am solo donc mu xam bu baax a baax montage bi ba fi ñu toll nii malgré volonté bi nga xamante ni kilifa yi am na nañ ko compagnie bi day nekk di jànkoonteeg ay jafe-jafe bët ki dem rek gis na ay compatriotes yoo xamante ni leen métti mooy nee nañ bi dafa tardé 9 neuf heures de retard boo xam ñoom ñu ngi ci aéroport bi xamuñ fu ñu jëm ak yu ni mel ba mu ko doon dénoncé jël vidéo bi def ko ci biir te loolu du nekku leen muy am lan moo tax jusqu'ici Air Sénégal mënut a décoller. Euh, maa ngi lay euh, gërëm sant ci laaj bi Chérif nga xam nga balaa ñuy sax tontu ci laaj bi foog ñu ñu xaw a dem fu sore parce que de manière générale suñu secteur bi si boppam moom moom la ñu war a xoolaat. parce que boo xoolee euh, ñun pàcc yi ñuy xool mooy au niveau du ministère dañuy xool au niveau de la compagnie nationale dañuy xool au niveau de l' aéroport mm-hmm. parce que moom mooy secteur yi nga xam ne ni moom moom bu transport aérien bi ak aviation civile euh, sunu bu ñu xoolee departement ministériel bi depuis daanaka 2012 euh, ba léegi am na lu mot huit juróom ñetti ministre yoo xam ne nekk nañ ci secteur bi ci fu fukki at ak ñaar mm-hmm. dafa dafa xaw a bari mm-hmm. instabilité la voilà bu ñu xoolee ci compagnie nationale bi <coughs> depuis ñu ko sànc ñu ngi lim ñeent ñeenti directeur général loolu tamit dafa xaw a bari bu ñu xoolee tamit ci aéroport AIBD bi ñu ngi daanaka si ñeenti ñeenti directeur euh, généraux xam nga loolu rek boo ko boo ko euh, xoolee rek mm-hmm. analyser ko da ngay xam ne ni secteur bi stable bu secteur saablul nag pour ngay def ay performance dafay xaw a jafe hmm. waaw mais Air Sénégal moom euh, tey jii bu ñu xool présent bi dañuy xool nuñ ko nuñ ko sàncee ak euh, ba ñu toll fii hmm. Air Sénégal euh, man ci li ma xam nuñ ko sàncee baaxoon na waaw avant Air Sénégal euh, yeneen compagnie Sénégal Airlines ak yooyu yëpp maanaam régime yu ñu fi jaar yëpp dañu am vision seen vision baaxoon na. Mhm. vision baax na vision mooy lan mooy def aéroport bu bu mag. Mhm. bu bu bu yemamaay boo xam ne nekk na ci génération yu. aéroport yu yu bees yi. ba noppi toppatoo ko benn compagnie aérienne tamit bu mag. Mhm. loolu régime libéral bi amoon na vision bi régime président Macky Sall bi yéggali ko xam nga euh, vision bi mi ngi noonu mais maintenant lan moo tax loolu yëpp. Euh, parce que même bu dee aéroport bi amoon na ay tolof tolof bu ñu xoolee compagnie nationale bi tamit mi noonu léegi lan moo tax man dama gëm ne ci damay wax toujours ñun suñu secteur capital humain bi moom mooy problème bi. Mm-hmm. mais yaa ngi wax capital humain bi ngay wax changement directeur yi nga lim yëpp nga ni euh, source d'instabilité boobu bokk na ci li koy doxal mais en quoi. Euh, directeurs yooyu suñu ñëwee lan la ñuy changer ci doxalin bi dañuy andi personnel bu bees wala méthode de management bi moo dul bokk. ba tax affaire du mën a mais sinon kii jaaw lu ñu mën a wax moom mooy que xam nga dafa amoon benn équipe de projet bu ñu doon sànc Air Sénégal bi. vraiment ñi jëloon ay éléments wu Sénégal Airlines ak ñu nga xam ne ne vraiment ñoom commandant ak seen équipe ñoom ñoo ñoom euh, ànd ak directeur général Mamadou Sow sanc et kii euh, compagnie bi. Mhm. ñu commencé euh, di liggéey. vraiment commencé woon nañu def lu euh, liggéey bu baax. Mhm. mais dañuy dem ba nga xam ne ne ñu jékki-jékki remplacer équipe boobu. Mhm. dàq ñoom ñëpp andi fi benn tubaab. Philippe Bonne. waa ñu andi fi Philippe Bonne. Philippe Bonne boobu nañu waxante dëgg c'est pas de la xénophobie du leneen mais foofu la compagnie bi commencé. commencé suuf waaw. bu ñu muñee yàq yàq compagnie bi ñi ñëw andiwaat euh, Ibrahima Kane mm-hmm. koo xam ne profane la ci milieu bi ku am cursus bu baax la kenn du naatable euh, xarante fam ci finance ak yooyu yëpp mm-hmm. dégg nga il a un bon parcours un bon cursus polytechnicien la voilà polytechnicien la du cuune mais mënul ci transport aérien dara rawatina nag loo xam ne ni ñu ngi koy commencé yàq yàq nañ ko ba noppi nga bëgg ko day day day day am problème donc moom mu gën a suuxal compagnie bi ñi ñëw jël ko jox ko keneen du ci mën a def dara man gëmuma say jii dégg nga sama xarit la xam naa ko bu baax mais dama doon wax ne man mu nekk waaw dégg nga du du ci mën a def dara maanaam dañuy ñëw di colmater ay brèche te compagnie aérienne mais moom on disait mais on disait que lui c'est un homme du sérail ah oui mais n'empêche xam nga euh, euh, c'est la base qui est faussée en fait voilà foofu la ñu war a xoolee mhm. Air Sénégal bu ñu ko xoolee si ñu ko jël ñu ko jël léegi nii dañuy xool ñoo xam ne yàq nañ ko. parce que ñun yàgg nañu alerté dañuy alerté bu Philippe Bon ñëwee di di di def yenn anam yi parce que yow da ñëw jël benn compagnie. Euh, à la limite on a voulu grossir cette compagnie là au lieu de la laisser grandir dañ ko war a bàyyi mu màgg. bu ñu yàkkamti. mais évidemment politiciens yi euh, Air Sénégal dafa tombé woon benn euh, période boo xam ne en 2019 ñu ngi wax affaire élection euh, mm, présidentielle boo xoolee ci boobu la avion yi bu néew yi ñu ak yooyu yëpp ñuy nice nice donc compagnie aérienne du nice nice la compagnie aérienne ay réalité la yoo xam ne ne ne da ngay méngoog sa jamono mm-hmm. waaw mais boo toppee politiciens yi mais Philippe Bon bu ñëwee président Macky Sall bu buggee ñëw inclure compagnie bi si bilan am mais il faut ñu nice nice ko. Sénégal en fait pour man sama yi la c'est une honte. nu mu nekkee une honte mooy que ne que yow sax yeneen nationalité yiy jël Air Sénégal sax boo nekkee ak ñoom aéroport mu am retard cest à que da ngay sax ruus parce que déjà duñu communiquer dañuy euh, euh, dañuy tardé lu bëri bëri bëri yenn saa yi sax avion bi day yéeg wàccaat parce que c'est un problème technique. donc ils mettent la vie également des des gens en danger ça c'est ne pas du ay affaires yi nga xamante ni ay nettali kese la ay loo nga xamante ni dañ ko dund la. Hmm. yenn saa ay 10 heures de retard wala nga dem ba aéroport ñu ne la non non le vol bi du dem tu es obligé de revenir le lendemain te boo duñ ils te prennent pas en charge à l'hôtel loolu sénégalais dañ koy dund et il faut le dénoncer. loolu moom dëgg la mais euh, xam nga euh, damay ne man j'ai fait presque l'escale pendant 10 man dama leen koy reprocher toujours gis nga euh, prise en charge passager dafa am hmm. boo ko jaayee billet bu demee aéroport tukki dafa metti hmm. tàggoo tukki dafa metti jël say bagage dem aéroport boo ñëwee dañ la war a informer hmm. tout waaw wax la dëgg mais bu ñu ñëwee yow nga mën a ñëw laajte ñu ne la avion bi du dem amoo benn information loolu musuma naaru laay loolu eh, compagnie aérienne da ko war a euh, éviter te ñun en Afrique dañ tàmm yooyu doo informé pourquoi doo informé yow am nga chef d'escale am nga ay superviseur am nga ñooñu ñooñu ñoo war a jël akimoo problème mu passager yi lu ñuy wax passager handling mhm. waaw ñoom ñoo koy akimoo yow ñenn ñi dañuy jaay billet ne passager bi heure sangam demal aéroport avion bi heure sangam lay dem mhm. bu ñu ñëwee heure sangam boobu ñu leen wax ñu ñëw teew heure sàngam bu avion bi dem ñu nee na heure sàngam boobu avion bi du dem nañu leen wax la tax la tax euh, avion boobu hmm. demul ak ñu ñu ñu dalal leen teetee leen dugal leen ci ay anam yu baax yoo xam ne ni ni wax leen information bi nga xam ne day dalal sa xel parce que avion day day tardé day tardé bi lañ ciy bañ hmm. récurrence bi lañ ciy bañ te bu amee récurrence rek da ngay xool yow léegi sa avion yi lu tax xëy na peut-être dañoo màgget hmm. dañu am ay problème de maintenance ak yeneen ak yeneen yooyu moom mooy tax mais compagnie yu gën a mat ci àddina sax dañu am retard. Mhm. mais luy différence bi mooy dañuy informer luy différence bi mooy dañuy def dans la prévention. maanaam dañuy ñëw prévenir ba noppi luy def finance bi mooy dañuy dàmpa dañuy dàmpa seen passager. Ah, ah, parce que loolu loolu c' est prévu par c' est les textes. mais bu fekkee ni dafa am retard de trois heures de temps sur mille cinq cent kilomètres. il y des sanctions pécuniaires ou bien ay dommages et intérêts yoo war a defal euh, passager bi en fonction des heures de retard te loolu presque duy faral di am. càmm càmm loolu koy kii loolu benn compagnie aérienne même Air Sénégal mi sañu ko def en en Europe wala aux lu mu banque banque bi dina génne xaalis pour jox ko bu dee ay mhm. dàmpaay fii la ñuy ñëw en Afrique la ñuy ñëw ne la ñibbi dellul nga jël ak say propre moyen woo kenn mu ah. ñëw récupérer dem parce que dañuy ñëw day def euh, si la ñuy preuve euh, def ay euh, économie mais du loolu man dama yaakaar ne ne ne lu ngeen di wax noonu sax c' est le sommet de l'iceberg man damay gis ne souvent si réseaux sociaux yi les Sénégalais sont dans l' émotion oui. pour si ay retard ak yooyu yëpp non compagnie bi du compagnie bi retard dina am mais bu ñu xoolee nañuy xool récurrence bi lan la mais ni ñu xoolee doxali euh, doxalinu euh, entreprise bi moom moo war a moom moo war a soxal ñëpp. dafa mel ni foofu la problème bi nekk. Mm. maanaam mbir mi gestion ndax problème gestion la ndax problème moyen la parce que suñu flotte bi tamit xëy na demewul na mu war a demee des fois ñu luye avion yu nga xamante ni màggat lay doon mhm. euh, euh, loolu yëpp waaw ba am na ko ci xawoon daanu jamono yële donc tey pour saafara mbir mi fan lañu ñu war a euh, agir avec beaucoup avec urgence et avec tact aussi fu ñu war a man si sama xalaat parce que euh, franchement régime yi jàll fii mm. xaalis kenn du ne xaalis dugaluñu ko ci transport aérien de manière générale et de manière particulière ci Air Sénégal yii nii moo xam Sénégal Airlines la moo xam sax Air Sénégal International Sénégal Airlines bu ci Air euh, Sénégal Air Sénégal SA bi nga xam ne ne même ci Covid bi après 45 milliards dugalal nañ ko. Mm-hmm. te fekk ne euh, moom déjà capital am 40 40 milliards la te lu mu ci entamé woon lu mu ci jotoon jël barewul dégg mais donc tey jii du affaire xaalis. man gëmuma ne ne affaire parce que état bi ba léegi. nii nii chaque mois. mi ngi perfusé ngi dugal euh, kii. Mm-hmm. ñun bu ñu nekkee man c'est vrai nekkuma ci compagnie bi bi mais Sénégal Airlines bu ñu ci nekkoon ma nekkoon coordonnateur euh, collège des délégués ñun dañu dem benn moment boo xam ne ñu ñoo benn primature ne leen non arrêté. bàyyi leen di dugal xaalis ci fii parce que xaalis contribuable la. Mm-hmm. compagnie boo xam ne ne mënul def ay bénéfice wala ay avion muy du naaw ça ne sert absolument rien. di di ko di di ko jéem a soxal fekk ne du naaw. boo na ne pousse euh, benn picc bu dee laa laafam mi dafa dam mm-hmm. du naaw. Mm-hmm. da ngay sonnal sa bopp mais du naaw. Mm-hmm. donc tey jii nañu xool euh, réellement euh, redimensionner compagnie bi xool ressources humaines yi man dama ne ñun suñu secteur ressources humaines la parce que secteur bu fiir la. bu ñu ñëwee éviter clientélisme bi éviter népotisme bi éviter recrutement yaa ma neex yooyu. nañ ko éviter. parce que loolu moom mooy tax et puis bu yow da ngay ñëw nga grossir sa masse euh, salariale. Mm-hmm. amoo ay recettes yi nga xam ne ne ne ñoom pratiquement ñi ngay jël. dañu war a am valeur ajoutée ñun transport aérien da nga war a am valeur ajoutée duñ jël benn directeur di la fay 5 millions. ah mm-hmm. euh, directeur commercial wala kii yow nga war a dugal xaalis ci compagnie bi pour mm. compagnie bi su xale yow pratiquement yow da ngay def du présentiel mm. daanaka mm. mooy huit heures ngay ñëw dix sept heures ñi lay fay cinq millions ak yooyu yëpp loolu américain du ko nangu européen du ko nangu asiatique du ko nangu mm-hmm. ñun africain yi pourtant ñu koy nangu mais justement euh, euh, démb sax am na xibaar bu jiboon ba ñu naan dañoo nommé directeur bu bees après il s'est avéré que fake la mais peut-être que mën nañu xaar lu ni mel am suñu naree fal Euh, ku wutu Alioune Badara Fall foofu ca euh, aéroport ba euh, Air Sénégal ci yan critère lañ ko war a basé parce que sànq yaa ngi rappelé exemple Philippe Bonne ak Ibrahima Kane. Hmm. fii je pense que on est face à une situation boo xamee ni y a une crise te booba il va falloir chercher le profil idéal. mais loolu am na aussi de ne pas faire dans la précipitation. ou bien de penser que bu ñu fi dindee DG bi rek euh, affaire bi dina nice euh, que retard amatul wala leneen non jaaw loolu mun nañ ko def di dix fois loolu moo lay won ne ne ne moom mooy lu ma waxoon euh, ci njëlbeen mooy ci département yëpp laa ci wax man bañ naa ba dama ciblé département bi xooluma rek euh, kii euh, nu ñu koy waxati direction générale bi parce que euh, compagnie aérienne bi c'est une goutte dans dans dans l'ensemble du transport aérien benn maillon ci chaîne boobu la mhm. xam nga bu fekkee ne yow defar nga tamit compagnie bi ba mu ba mun a cocc te yeneen secteurs yi tamit doxul compagnie bi si boppam du mun a dem mhm. donc leneen li man dama yaakaar ne ne tey ji ñun lu ñu war a def moom mooy toogaat ñun ñi euh, mm. professionnels yi def euh, j'ai vu que le nouveau ministre Malick Ndiaye wax na affaire euh, assise du transport mais xam naa ne si transport terrestre la ko jublu mais il faut que mu ngi def assise du transport aérien di jotoon nañu def benn en 2006 du temps de du régime libéral de Ablaye boobu ma ndem si yàlla Ousmane Masseck mm. moo nekkoon ministre bi ñu defoon ki ak ay conclusions yoo xam ne ni ba léegi c'est à l'ordre du jour Euh, maanaam a Ndoye Seck bu mu ñëwee tamit defoon na ay journée du transport aérien def ay atelier ak yooyu yëpp conclusion yi yëpp benn la xam nga fii tamit il faut ñu toog man dama leen ne toujours luy euh, suñu secteur bi dañu war a éviter omission ak exclusion dañu war a woo ñëpp ñu toog. Hmm. ñu si réfléchir si vraiment si secteur bi. secteur bi mais xool. Euh, comme koy sax parce que c' est secteur boo xam ni bu naan appel à candidature moom ah. nga dafa fiir donc foofu moom. clientélisme waru ci am appel à candidature des fois sax mën naa nekk euh, au plan international nga xam ne sa nit mën naa ñëw ñëw compétir parce que hmm. foofu dañ fa laaj boroomi xam-xam quand mais dama lay dëggal boo xoolee Air benn canadien moo fa nekk. Euh, Smith moo fa nekk euh, PDG. waaw ah te bu mu bu ñu ko jëlee dafa fekkoon ne Air France dafa sonnoon trop bay waa ji ñuy wax naa dina fayit wala du fayit français yi dañuy ñëw andi euh, ay benn canadien moo ko soxali. Mm. Air temps yi day def bénéfice. Ah ay compagnie comme Emirates ak yooyu yëpp ñoom avec candidature la ñuy defar. Ah. Mm-hmm. ñoom seen yoon nekku si. yow da ngay ñëw ñu ne ñu jël profil te ay cabinet yu sérieux la ñuy jël. yoo xam ne amuñu xamuñu kenn. ñoom ay profil la ñu xam ñu ne la ñun critères yi la ñuy retenir. ci benn cahier de charge voilà voilà exactement ñu ñëw daf la ñetti ñëw daf. foofu moom appel à candidature la war a mën a nekk euh, au lieu que ñuy ñëw rek di def ay nomination yi nga xam ne après ay regret lay andi. Mm-hmm. ay regret lay andi moi je pense que tey jii franchement war nañu pencher si si secteur bi de façon beaucoup plus profonde. que ñuy nekk ci surface yi man peut-être euh, lu may wax euh, souvent l'opinion publique dañuy euh, attardé wu trop ci retard yi mais retard yi mun nañ ko retard yi du dara à vrai dire comportement la mais comportement yooyu ñun bu ñu nekkee à l'escale dañu war a jël compagnie yu européenne yi dañuy am problème ñun yàgg nañu leen di mm. jël nga xam ne ni par cent personnes wala ñu benn avion lum la ñu la bàyyi en rade nga jël leen en charge mm. affaire bi mooy ñëw ci Euh, euh, passager yow ni nga bëggee passager yow da nga bëgg jeene ba ñëw ci sa compagnie aérienne mm. mais jeene ba convaincre nga ko mu ñëw si sa compagnie aérienne mais bu demee aéroport tamit mais benn chaîne la warul am rupture de chaîne da nga war mais par patriotisme sax ñu bëri dañuy jël Air Sénégal par patriotisme mm. mais léegi ñu bëri loolu tax na léegi bàyyi nañu Air Sénégal retard yeeg ñàkk prise en charge yeeg communication ba pare billets yi teg ci cher mais aussi euh, état bi dafa euh, newoon ñi nekk ci gouvernement bi ak bon ñi nekk ci ci secteur euh, public bi ñoom dañ leen di inciter ñu jël Air Sénégal peut-être xanaa bor yi moom moo bëri côté boobu moo tax peut-être compagnie bi sukkaliwul on ne sait pas comment les choses se passent. bon man du mu mën a wax mais de manière extérieure bu ñu ko xoolee. ak mm. suma expérience damay xam ne ne loolu. dañ koy wax nii rek. Mhm. xam nga aujourd'hui Air France bu la bu bu fidéliser jéena ba jéena ba am carte euh, gold wala yooyu ak Maes ak yooyu yëpp c'est difficile mu dem ci compagnie bi compagnie Air Sénégal et puis il faut ñu xam ne aussi tamit compagnie bi dafa am ay limites yow par exemple F euh, compagnie bi Paris rek lay dem. yow bu fekkee ne da nga bëgg a dem au delà looy def. ils n'ont pas de amuñu benn compagnie bi nga xamante ni dañuy lëkkaloo ak ñoom bu def les euh, lancé woon nañu ñun reproché nañ leen ko sax. lancé nañu teel nañu lancé pari bi alors que. lu ñu waroon def mooy moom lu moo xam si njëlbeen bàyyi sa compagnie bi mu màgg. mu xam suñu bopp def sa le domicile jëndoon nga sa ñaari ATR. ñi ngi def liggéey ay avions yu baax la dégg naa sax ne leen dañ ko bugg a jaay ak yooyu yëpp mais loolu musiba naaru laay la xam nga avion yu baax la yoo xam ne ne ne baax na pour domestique bi baax na pour le le le le voisinage nii mooy euh, Guinée Bissau Conakry ak yooyu yëpp donc ñooñu loolu moom moom mooy euh, ñu bàyyi ñu mu mu mu màgg moom moo moo moo gën Euh, que ñu ñu. parce que même New York bi moo tax on avait pas. New York rek def benn marketing. tout temps temps dañuy dem New York. mooy politiciens yi rek ñoo dañuy dem Genève dañuy dem Londres non ça se décrète pas comme ça. Mm-hmm. da nga koy def étude de marché xool lu tax et puis si yow da ngay ligne bu ngay def mais yow du yow kenn. Mm-hmm. tey jii dama bëgg a Paris mais Air mi ngi fi depuis mille euh, ah. soixante quinze ans. moo la gën a sanc bu baax am ay euh, lëkkaloo moom day dem partout dans le monde. Ah. province yi gën a tuuti si États-Unis wala si yeneen ba Asie dafay dem. xam nga ruq-ruqaat yu gën a tuuti yow da ngay yem Paris. Mm. amoo beneen compagnie boo xam ne ne moo lay. mu lay transférer say kii moo lay mm-hmm. mais donc am nga limite ak kii. yem ci Paris mais sax arrêté nañ ko. waaw ah. Saint-Louis bi Dakar mm. Saint-Louis. dañ ko war a arrêté. dematul parce que xam nga compagnie amul sentiment. voilà c'est da ngay def ay lignes yoo xam ne moo tax balaa ñuy ñëw. mooy politiciens yi ñoo leen ciy dugal. mais maa xaw ma parce que da ngay ñëw présenter ji même euh, temps yële passé nee nañu jënd nañu ay avion ak yooyu pour def Saint-Louis yooyu yëpp. mais c'est la yow yow fu nga nekk ci sa domaine bi de defagoo dara. dégg ngeen yu ñuy wax ñu suqali ngay wax Dakar Saint-Louis mais ah. il faut aussi que ah. état bi xam lu mu bëgg mm. tey jii yaa ngeen ne da ngay def benn autoroute Dakar Saint-Louis ah. mais autoroute boobu bu ñëwee rek day concurrence avion bi l' avion est cher le pouvoir d' achat des Sénégalais mm. ne leur permet pas de de prendre l' avion c'est ça oui il faut ñu xam ko parce que c'est donné donné à quelques privilégiés mm. ñooy jël avion waaw boo xoolee avion tamit bu ñëwee place am ñun suñu avion bu mag bi à trois cent neuf bi deux cent quatre-vingt-dix places la. Hmm. mais ñu nekk àll ba béykat yi sàmmkat beeg yooyu yëpp ñoom duñ jël avion. Hmm. mais dinañ jël train dinañ jël yenn oto ak yooyu yëpp. tey jii yow boo ñëwee autoroute Dakar Saint-Louis bi mais da ngay jël taal sa oto dem. si hmm. dem si Ila Touba bi gis nañu lu mu lu mu fànn avant Touba cinq heures de temps la six heures. mais léegi une heure et nga ñëw ndekkee foofu dem añee Dakar. xam nga donc yooyu yëpp donc jamono day dox. nga xam ne ne ne fu avion dañ euh, dem ngay jël benn avion boo xam ne coût d'exploitation bi dafa bare te du la ci génne day gréver sa yi jarul ngay. mais parce que yaa nga wax nga sànq ci. li nga xam ne dernière question. mooy AIBD dañ ne woon mm-hmm. ëpp. boo dëkk yi ne ëpp la moom xam nañ leen fii ci Afrique. boo fa hmm. demee dèjà boo timee seen aéroport la ñoom seeni i nga gis dèjà ñu fees fa transit bi nit ñi duñ am sax temps boo yéexee sa avion bàyyi la fi. Hmm. fii nag c'est pas le cas alors que AIBD depuis 2017 lañ ko inauguré fii Sénégal. Hmm. lu waral loolu tamit. xam nga euh, toujours man dama leen di wax euh, d'ailleurs sax ñun on a été reçu notre association euh, lundi passé par le DG de AIBD. dégg nga am nañ yaakaar Cheikh Bamba Dièye vraiment am nañ yaakaar si si moom te xam na xam na am na vision te loolu moom moo am ci njiit boo amee vision rek xam fooy teg sa tànk rek c'est déjà une bonne chose mais affaire ëpp aérien bi nga xam ne ne tamit slogan la ñu dañuy ne du aéroport du moom mooy décréter boppam ëpp mm. aérien compagnie aérienne moo koy def ëpp tey jii Air Sénégal mun na ne man AIBD mooy sama ëpp comme mun na ne Saint-Louis mooy sama ëpp. Hmm. parce que gis nañ fi Air France CDG la jël. Hmm. Lufthansa bi ngay xam ne ne ne. mooy moom euh, Francfort la def te Francfort du capital bi. Hmm. Berlin mooy capital bi moom. donc bari na ay compagnie yoo xam ne du capital bi mooy seen ëpp. ñoom ñoo choisir aéroport bi. maintenant aéroport bi vraiment jël nañu ay jumtuwaay c'est vrai que y a beaucoup de y a quelque chose à certaines parce que xam na fu mu jëm. que dina ko gën a kii ba nga xam ne ku bëgg a jël aéroport bi def ko ëpp doo ci am problème parce que ëpp dafa am lu mu laaj. waaw pour que compagnie yi ñëw di ko di nga ñëw aéroport bi mooy jël ay infrastructure mhm. jël ay matuwaay ak yeneen ak yeneen teg ko pour que compagnie bu ko choisir comme ëpp du am benn problème. sûreté sécurité yëpp parce que tey jii euh, ëpp bi mooy lan mooy. Euh, yekkalaate la hmm. yow da ngay andi ay ay ay passager Dakar mhm. tas ko ñii dem Bamako ñii dem euh, hmm. Guinée ñii dem euh, Brazzaville et cetera hmm. mais loolu moom mooy lu koy andi tamit mooy da ngay éviter retard yi xam nga par exemple tey jii da ngay ñëw ni man sama avion buy jógee Paris day ñëw à quatorze heures yow di nga am avion correspondance boo xam ne ni ne à quinze heures à seize heures mais maintenant yow ak pari bi bu ñëwee euh, retard bu ëllëg mu ñëw à à 14 heures mu ñëw à 16 heures. fekk na beneen bi dem na bu fekkee ne yow da ko def de façon <laughs> récurrente. doo am lu ëpp dal na ma ma jombi lool sax. voilà bu amul nag beneen avion nga fanaan wala boo bu dee deux jours la moom mooy loolu moom mooy yàq ëpp. Mhm. ëpp moom il faut que vraiment mu am benn maillage boo xam ne le nga xam ne ne boo ñëwee passagers yi seen correspondance yi c'est fluide. Mhm. noonu la demee mais aujourd'hui aéroport bi. mi ngi jëf ay jumtuwaayam et on espère que avec le nouveau DG ça va dans la, euh, dynamique de continuité d'investissement ñoom am nañu ay projet de problèmes projet yooyu ñoom mais encore pro euh, problème yooyu ngay wax euh, hmm. ba il faut que ñu toog il faut que euh, ministre bi dajalee njabootu transport aérien bi aviation civile comme ni ñu ko defoon en 2006 vraiment de façon responsable dégg sans complaisance ñu diagnostiquer mhm. parce que affaire bi moom mooy wax problème yi mais aussi trouver les solutions idoines pour le secteur mhm. loolu la mais sinon tapis bi rek da ngay ñëw de <laughs> tapis bi day paal bi ñuy <laughs> enregistrement <laughs> à l'enregistrement non mais parce que bon man je prends Air Sénégal donc euh, li sañuy sénégalais li ñuy dund rek la ñuy dund donc euh, moo tax bu ñuy dénoncer on est à l'aise donc euh, par rapport à ça donc Moustapha Diakhaté ñame non Ouagadougou laa ñëw war a dem ñame ma raté sama sama sama correspondance taxaw ci aéroport bi aw ma ku ma waxal. Mm-hmm. ma jommi jomet. Mm-hmm. giraasi mi tey ci laa ko jàpp ba léegi damaa jekki rek am ku ma nii Malick looy def fii. Mm-hmm. ma ko damaa raté sama correspondance. giraasi keroog moo mu yóbbu hôtel. dama saa yi bul jo bul jaaxle. Mhm. kaay yóbbu la hôtel euh, bu subaa ñu lijjanti lu la yóbbu. <laughs> ci bis yi laa bëgg dugg continuer sama yoon. mais euh, juste peut une une question. Euh, Moustapha Diakhaté puisque yow aussi yaay secretaire général de l'union des acteurs du fret fret bi jamono ji mhm. fan la toll parce que bu ñu xamee que ne que GPI ñu ngi leen di concurrence léegi bu baax. Mhm. <laughs> non GPI sax xam nga GPI mënuñu mënuñu ñu concurrencer noonu parce que bon GPI peut-être. ñuy def express. Mhm. dégg nga ñoom ñooy ñoom la ñuy concurrencer mais ah. fret bi gis nga ne dernière statistique yi nga xam ne nii ne pratiquement def na bon euh, vingt six pour cent. Mhm. mais vingt fret bi dafa nekk euh, parent pauvre transport aérien de manière générale. Mhm. mais euh, autorités yi dañ ko war a jël akimo parce que. yeneen ba pourquoi fret bi am na solo boo xoolee Covid bi. aéroport yi bu ñu tëjee. au niveau mondial. Mm. fret mm. avion fret yi dañu doon kii. te tey jii compagnie aérienne yi dañuy réadapté wu euh, seen i seen i seen i kii parce que même cabine yi yoo xam ne ni comme mënatuñu jël passager yi. Mm. cabine yi dañuy ñëw di si record fret. parce que temps boobu la demande était très forte en mat en masque ak yeneen yu xam ne Covid bi la donc ñun dañ si contribuer. Euh, ñun ñoo xelal nañ sax euh, compagnie bi temps boobu Ibrahima Kane moo fi nekkoon mais équipe bi. pour wax leen ne ne ne mun ngeen def de l'argent mhm. mun ngeen def de l'argent avec le fret et ils en ont fait ils en ont beaucoup fait bon c'est vrai que Air France euh, moo jëkkoon am idée boobu ak yooyu Lufthansa ñun bu ñu ñëwee xam loon ñu ne mais yéen ñii lu ñuy def mun ngeen ko def mhm. tey jii tamit fret bi bare na ay problème dégg exposé nañ ko DG AIBD ak yooyu yëpp mhm. il faut que tamit yenn yi nga xam ne ne ne maanaam réorganisation moo tax man bugguma sax ñu ne fret bi ku nekk di jéem a régler sa problème ne ñu toog nga xam ne ne lépp moo lëkkaloo c'est une chaîne de valeur mm-hmm. chaîne bi ay maillon bré nag maillon mënul dem mm-hmm. mayon du forme chaîne mm-hmm. maillon yi ngay dajale def chaîne boobu bu nekk nag da xool ndax baax na nga door ko teg ci chaîne bi bu baaxul nga def ko ci chaîne bi dina so euh, chaîne boobu dina dagg dina dem benn moment bu dagg mais fret bi nga xam ne ne ne nekk nañ ci ñun en tout cas def nañu ay mbëbët parce que dama ne ñu nekk ñu di kaas yooyu yëpp dañu def ay mémorandum yónnee nañ ko ministère bi yónnee nañ ko AIBD LAS 2AS lu nekk bind nañ ko parce que dañu ne ñun dañu war def ay contribution si euh, sérieux problème yi proposer ay solution idoine union des acteurs du fait def nañ ko te je pense que euh, autorités yi ñun def nañu demande d'audience aussi tamit ci ministère bi tontu nañu sax nañu yëg nañu xëy na dinañu recevoir mm-hmm. mais dinañ ci profiter toujours pour wax ne euh, pour dalal sa xel daal du du GP yi. GP yi du leen concurrencer. waaw du moom parce que ñun ñu ngi si parce que le groupe. Mm. vraiment fret aérien bi de manière générale du du du doon ay parcelles yu nga xam ne ne. yaa ngi yóbbante benn affaire bu ndaw. Mhm. yaa yooyu mais quelquefois am na du volume parce que avion yi boo xoolee lu tax euh, fret bi am importance pour que ay yeneen compagnie aérienne yi ñëw ak ay des gros porteurs ce n'est pas seulement pour les passagers mhm. parce que avion bu feesee del ça te fait quinze tonnes pratiquement de fret. boo xam ne ne c'est des recettes additionnelles. Mm-hmm. day day maanaam daal euh, mm-hmm. ñeex la yokk ñeex la si cere bi. Mm-hmm. donc fête dafa am importance bi nga xam ne ne nit yi autorités yi war nañ si bàyyi. Sénégal amu ko à part li muy yab ci suut bi noonu. non Air Sénégal ñun wax nañ lañ ko te man euh, kaas naa ko tey jii service fret bi ñuy am ñoom euh, benn d'ailleurs benn aberration la en plus parce que ñoom dañu am benn indien li ñu jël def ko comme chef chef service fret maanaam ko naqarlu man j'ai été cargo manager euh, Air Sénégal International nekk cargo manager Sénégal Airlines ñun sénégalais yi am nañu ay profil en plus finir pour occuper ce poste là mm. pourquoi ñun dañu war a dem jëli benn expatrié pour un chef de service mm. ah indien en plus mm. dégg mënul nekk ñun wax nañ ko euh, au niveau d'Air Sénégal par rapport ak ñun ñu ko war a wax euh, directeur bi dégg nañu wax nañ ko ko nee nañ ko ñun d'accorduñu mm-hmm. que ngeen di jël euh, bàyyi fi ay sénégalais di fi jël kenn koo xam ne ne ne ñun Air India sañu ñu fa nekk directeur général du ñu fa nekk directeur sax waxuma la chef de service mm-hmm. waaw na ñu am ful ak fayda on parle de souveraineté on parle d'emploi pour les pour les jeunes il y a des jeunes qui sont capables de de remplir c'est euh, d'autant plus que euh, fret bi da nga ko décentraliser maanaam du yow yaay jaayal sa bopp mm-hmm. danga ko dénk ñeneen donc pourquoi ngay jël benn expatrié boo xam ne da nga koy lu nga koy fay pratiquement c' le double de li ngay fay benn sénégalais. Mm-hmm. alors que sénégalais bi mun na. sénégalais yi mën liggéey ah, ko mun nañ ko def man mm-hmm. xam naa si dara parce que ñun formé nañu ay profil yoo xam ne ne valablement mun nañu remplacer de loin. Mm-hmm. parce que kooku nekk foofu dafa am barrière linguistique dégg nga déggul français déggul wolof. ba noppi am barrière ba mu xam ne ne xamul marché bi mhm. mais attends kooku pourquoi nga koy bàyyi foofu mhm. pas muy perdurer duy di la di justement ay contre coup si say performance mhm. ngi noonu peut être yenn boo ko waxee na ba nga baal ma su benn ki dañuy yaakaar ne ne yow da nga xëcc couverture bi si yow mais ñun Sénégal la ñuy soxal. Mhm. ñun Sénégal kese moo ñu soxal. Mhm. te musuñu def dara li nga xam ne ni ku ñu laaj dara ñu jox la. Mhm. on transmet notre savoir. munuñu ko monnayer musuñu ko monnayer te duñ ko monnayer. parce que réew mi moo ñu soxal moom la def bu ñu gisee nag compagnie aérienne bi sooxe si yu bare. xëy na peut-être ni ñu ko defee nii sax ba euh, dañuy junj rek. da ngeen ciy wax sax dangeen ci war a wax sax. dañ ciy wax <laughs> loolu. Moustapha Diakhaté <laughs> sunu sunu ay bébé la dañ ci dugal suñu loxo bu baax. di la remercier bu baax a baax voilà. voilà Moustapha Diakhaté cadre la. Mm-hmm. dans le transport euh, donc euh, aérien ku ko dégg muy wax xam ne ko la muy wax maîtriser na ko ku xarañ la ci wàllum transport aérien nekk aussi secrétaire général de l'union des acteurs du fret il va rester avec nous pour. donc euh, tàggu leen en attendant ñu xool la une du journal L'Observateur